koy ñaawlu bu baax ndax euh, comme li ñuy wax dafa nekk ay mbir yoo xam ne day faral dañ koy faral di gis ay nit yu ñu téye ci kaso ñu ne faatu na ñaare dañu naan dafa xaw mais loolu sax dañu ko war a moytu nit ki buñ la téyee ci kaso waruñu seetaan da ngay xaw war nañu xool ay moyens yoo xam ne dinañu am euh, possibilité xol nit ki balen koy dugal ndax amul objet wala ay matériel bo nous dina ko permettre mu ray bopam lolu dafa nek lo nous ci règle yi la te motax ñun pour chaque fois bu nit faato ci kasso wala mu faatu police wala gendarmerie dañu nous nañ def ndax lolu règle bi ci affaire droit de l'homme doxal ndax nit bu faatu rek ci kasso rek suñu xel bu ñaawé dañ def procureur nag mo wara def enquête autopsie bi ne la suicide la mais parents yi ñom d'accord ñu si am na ñi ci douté lolu bu amé xel yi day am ay jiixi jaax pour éviter jiixi jaax yi nak dañu né dañu am contre expertise bu ñu contre expertise alors mu gëna a leeral mbir yi ñëpp seen xel euh, dal ci mbir mi né leer na ba nga xamné ñëpp xamné ne suicide la bu boobaa ñu xam ne suicide la mu def responsabilité suicide la parce que loolu tamit du tax du tere nag responsabilité nekk ci ndoddu police ak autorité yi nga xam ne ñoo téye nit ki ba muy suicide enquête bi moom euh, ñaaree faral dañ koy faral di def pour les police dañu jox ko gendarmerie pour les gendarmerie jox ko police mais loolu moom organisation état la waaw ñu mënuñ si dugg waaye procureur bu dee taxaw na pour def enquête dina xam kan la koy confier ba xam ne enquête bi dina jaar si